bokk yi di safoo di teewlu xibaar yi ci Leral TV ñu ñëw comme ni ñu leen ko waxee saa su nekk wala li ñu koy defee altine jàpp àjjuma 12 minutes chrono dellu siwaat na ci ayu bile première numéro ñu dalal euh, Ben Diop mu nekk nag koo xamante ne samp na ndëndëm euh, ci jongante njiit réew atum 2024 Mohamed Ben bien entendu nekk ingénieur en finance candidat la candidature de la présidentielle leader du mouvement de la grande coalition euh, bi nga xamante moom mooy kon passe moom la ñuy dalal li ki tey jëlee am mbette maa ngi lay jaajëfal te di am mbégte bokk ak yow plateau bi di nuyu euh, suñu téléspectateurs yi ak euh, internautes yi nekk euh, yu ñu suivre fii ak ci diaspora alors on va commencer par une série de questions-réponses une série de questions-réponses boo xamante ne dafay nekk des réponses très fermées. Mm-hmm. vous êtes candidat. tout à fait. alors vous êtes de l'opposition. de l'opposition. bien sûr est-ce que vous avez des liens. euh, de bonnes relations avec euh, les candidats, autres candidats qui sont de l'opposition sénégalaise ben, je, suis, euh, je suis bonne... Euh, en fait, je suis dans de bonnes dispositions avec tous les membres de l'opposition, donc amul kenn ku ma ci amal xar ma yàlla. alors est-ce que bokk nga ci alliance bu bees bi ñu woote FIT bokk nga ci fanweer ak juróom ñi nga xamante ne signé nañu ci. boobu lépp alliance. waaw alors comme ni nga ko waxee alliance la boo xam ne am na ñu ko tëgg mais mel na ni bokkuma ak ñoom gis-gis ci ci wàllu boobu. pourquoi. choix la choix politique la. donc euh, ñoom euh, ils, ils se disent de l'opposition radicale et man tout ce qui est radicalité bokkul ci sama. alors vous disiez un jour euh, ci benn discours boo ma sa def mhm. nga ni. yow sa politique état d'esprit la est-ce que gëm nga ne état d'esprit boobu gis nga ñoo xamante ne xëy na yor nañ ko ci langue politique bi rawatina ci way ko jég gis naa ko parce que am na ñu ma ciy waxtaanal ci wàllu boobu na gaawewul nu war a gaawee hmm. mais bëri na ci ñoo xam ne am nañ état d'esprit boobu ab esprit de xam na ne liy soppi Sénégal nekkul ci fitna mais ci toog waxtaanee la ba trouver euh, solution bi nga xam ne mooy tax ñu mën a jëlee ñi fi nekk d'accord Mouhamed Bane Diop euh, comme ni ma ko waxee sànq candidat nga Euh, mais sànq maa ngi koy wax expert en finance. Mm. pourquoi nga lancé wu ci politique tout en sachant que tey jii xëy na euh, gisoo ne Sénégal gënoon nañ la soxla ci sa xam-xam jëm ci wàllu économie. waaw ci kaw xam-xam boobu ñu ma gën a soxla def naa ne jëmale ko ci réew mi gën ko soxali économie boobu loolu moo tax ñu samp suñu nan ndax euh, li nga xam ne mooy agrégat yi ñu war a mën a jaare wala fa ñu war a mën a jaar ba mën a relever le le niveau. du Sénégal ba tey bu ñu toogee di wax PIB boo xam mu ngi frôler les les les les deux chiffres. wala ñu am nañ yéen amoon nañ ñi fi nekk amoon nañ yéene àgg fa boobaa bëgg nañu le panier de la ménagère mun hmm. nekk rek loo xamee ne c' est pour faire plaisir aux institutions du Bretton Woods ngi nekk di souffrir. alors chiffres yi nga xamante ni ñu ngi koy yëkkati sànq yaa ngi koy wax deux chiffres ou bien deux points ci li nga moom moo jëm ci wàllu économie bu Sénégal. Hmm. est ce que vous vous avez conçu que loolu. askan wi ci boppam ñu ngi koy sant est jàpp nga ne xëy na euh, chiffre yooyu mën na nekk réalité boo xamante ne tey jii askanu Sénégal ñu ngi koy vivre économie bi. mënoon na nekk réalité suñu jaaroon fi ñu war a jaar mais depuis bañ ko waxee ak ñoom yoon bi nga xam ne fa lañ bëgg a jaarale sénégalais ak naxaate bi nga xam ne moom moo ci am ñu jëmale ko ci wàllu def ne pétrole ak gaz mooy tax ñu mën a àgg foofu bañ ko waxee ba léegi bokk naa ci ñëw taxaw ne leen ne du mës a am et njiitu réew bi fi nekk dana def mandat boo ma te du dégg croissance à deux chiffres parce que yoon ba ñu jaar du yoon bi nga xam ne moom lañu war a jaar tey jii cinq cinq pour cent rek maanaam bu ñu neewee euh, suñu suñu PIB yegg na à cinq pour cent booy wala jëm ci ci huit rek waroon na mën a tax tey jii le panier de la ménagère mënoon ko yëg ba jafe-jafe yi nga xam ne moom la Sénégal di dund nekkoon loo xam ne lu ñu war a mën a weesu la. mais quand même d'accord am na des efforts qui ont été faits ci li nga xam euh, ñu koy wax nañu nañu bàyyi euh, maanaam effort yi mënul mënuñu ko tudd dans la mesure amul impact direct ci population bi donc lu ñu mënti wax c'est maquiller des chiffres yoo xam ne tey jii institution de Bretton Woods chaque fois bu ñu ñëwee def correction. et que saa yoo defee correction Sénégal gën a nekk ci ay jafe-jafe tey jii defoon nañ ne tey dinañu dépasser li jëm ci wàllu euh, euh, besoin primaire yi Sénégal yi nga xam ne ñu ngi topp ñu naan euh, yokk nañu courant bi yokk nañu lii yokk nañu laa alors que toutes les conditions sont réunies pour que Sénégal mënoon wees fu mu nekk donc naxaate boobu la ñu war a dindi et comme ni nga waxee de par sama casquette de financier euh, euh, nous bien placés pour mën a wax li nga xam ne moom mooy dëgg-dëgg li Sénégalais war a dégg. vous serez aussi bien placé euh, pour nga jàmbar xool euh, vision bu Sénégal fi mu jëm déjà euh, marathon budgétaire bi léegi ñu commencé ko assemblée nationale on nous parle de 7000 milliards ci budget ci xayma li nga xam ne moom la ñu bëgg a def 2024. Mm-hmm. concrètement en tant que l'œil d'un financier. Mhm. ndax jàpp nga ne 7000 milliards yooyu. Mhm. askanu Sénégal comme ni nga ko waxee dinañ ko sentir impact ci li nga xam moom moo jëm ci économie ah, nee nañu nee nañu fois day nekk budget boo xam ne budget alimentaire lay doon. donc ça veut dire que tey 7000 milliards yooyu euh, du du du loo xam ne tey dina am impact direct euh, maanaam du mën a impact direct ndax ci jom seen yéene mooy mu am impact direct ci population bi ndax bu ñu xoolee li jëm ci wàllu investissement. donc yeggul ci mille milliards donc tey li ci bëri ci ci budget boobu ana fan lañ koy nar a dugal. donc hmm. euh, encore une fois dafay nekkaat loo xam ne euh, li li li naxasal bëtu bëtu Sénégal yi lay doon rek li ma leen di ñaan rek mooy nañ ñu dimbali ba bañ koo épuiser. fii février ndax 2024 euh, am na yeneen échéances yoo xam ne moo ñuy xaar. Mohamed Ben Diop je rappelle candidat bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo samp seen dënn ci atum 2024 tey jii Mohamed espérons wala essayons de marcher justement vers la avenir. le 2 mars 2024 Mohamed Ben Diop def passation de service ou bien prestation de serment. lan mooy nekk premier jalon bi nga xamante moom ngay teg en tant que président de la République. alors premier jalon bi nga xam ne moom lay teg mooy d'abord euh, euh, les ressources du Sénégal aux Sénégalais première chose. deuxième chose bi euh, mooy tey ji fexe ba dans les six mois yi nga xam balaa fin d'année bi. dootuñu wax affaire indépendance alimentaire au niveau du Sénégal yàgg naa ko dina ko waxat encore une fois il nous faut six mois yoo xam ne ak une vraie volonté politique Sénégal dépassé lépp lu jëm ci wàllu tey jii euh, waxu lekk ak yu ni ndax on la capacité am nañu les moyens pour pouvoir y arriver loolu bés bu ñu ko defee bu boobaa bépp bépp programme économique boo xam ne teg nga ko boo xam ne dina tax ñu mën a suqali Sénégal Sénégal dinañ la ci mën a suivre. ñu jàpp ne ne loolu suñ koy def daf impact bi même c'est un euh, impact national lay nekk ci bépp gox-goxaat ndax poumon économique yi nga xam ne moom moo nekk Sénégal loolu yëpp la ñu war a soxalindoo te pour ñu def ko dañuy accompagner tey jii le secteur privé ak li nga xam ne tey moom la ñu wax le secteur dit informel. et en quoi faisant exactement. non xam nga tey jii accompagner le secteur ba naa ko ba nee naa la ak le secteur dit informel ndax bu ñuy xool tey le regroupement. des des des agriculteurs dañ leen di jël daanaka ñu ci bëri féetal leen ci secteur informel bi tey ji ils sont pas outillés pour mën a teg les bases du d'une d'une politique d' d'une d'une dafa d'une démarche d' industrialisation ci li nga xam ne moom lañ bëgg a def en production intensive parce que Sénégal dina jóge ci euh, produit en fait ci ci agriculture saisonnière jàll ci production agricole hmm. te booy jàll ci loolu il faut que mu am les mesures d' li ma lay wax nii dama ko dund ndax. lu ci mel ne irrigation entre autres. ak euh, irrigation ak industrialisation bi sax. parce que nee naa la dama ko dund parce que c'est je parle en connaissance de cause bi fi président Wade di lancer les un million de tonnes de maïs. maa ngi woon ci société boo xam ne on était la seule industrie au Sénégal boo xam ne mënoon nañ def transformation bi te nekku moon à cent mille tonnes yoo xam ne mënoon naa ko transformer au moment où ñu ngi tegoon sur la table un million euh, en termes d'objectif d'objectif moo tax ma ne bu boobaa le secteur dinañ accompagner. tey jii euh, le secteur privé. accompagner aussi en même temps li nga xam ne moom mooy euh, suñu mbokk bool-bool yi pour ñu formaliser leen ba ñoom ñu mën a teg les bases d'une industrialisation ndax bëri na ñu nekk ci ñoom ñoo xam ne am nañ capacité bi pour mën a ak euh, ak xam-xam bi. donc loolu bés bu ñu ko defee. dinañ gis ne ne ne dinañ mën a commencer nag teg les jalons yi nga xam ne moom mooy permettre à ce que ñu mën a yegg foo xam ne Sénégal dina mën a gis boppam ci ci wàllu ci wàllu développement. d'accord donc mën nañu jàpp ne euh, votre politique en tout cas euh, mu ngi jëm politique développement je veux mu ngi accenté wu justement euh, prioritairement ci li nga moom moo jëm ci wàllu agriculture. surtout sur le développement humain nañ ko tuddee noonu. sur le développement humain développement humain parce que nit balaa ngay mën a ta réew nga koy mën a tabax day fekk ñu nekk ci réew mi mën a gis seen bopp ci réew mi. mën a taxaw. maanaam euh, lekk ba su naan ba màndi loolu mooy tax tey jii nga mën a teg axe yi tax ñu mën a ñu mën a ñu mën a wax def Mame Ben Diop c'est quoi votre regard si musiba bi nga xamante ne mu ngi dal Sénégal jamono jële jëm ci émigration irrégulière surtout la jeunesse bi nga xamante moom mooy l'espoir de ce pays est en train de périt, il est en train d'être englouti par l'Atlantique. Alors, qu'est-ce que vous proposez li may proposé euh, tey jii suñu ko nee ci cheminement bi nga xam ne man la ko doon wax ci wàllu agriculture ndax nee naa la dafa nekk loo xam ne ñun ak programme bi ñu yore 9 millions d'emplois dina ko créer ci kaw 9 millions d'emplois yooyu li ñu bëgg wax mooy Sénégal moom mooy dëkk boo xam ne dañoo baaxoo am ndaw ñoo xam ne dañoo bëgg a génn Sénégalais moom moo bëgg a tukki ci kaw bëgg tukki boobu am nañu les capacité en tant que président de la république moo signé des conventions avec des états yoo xam ne ils ont besoin de seen main main ma former leen fii en amont accompagner leen ba nga xam ne ne immigration irrégulière kenn dootu ko waxati mais dañuy dem dans une forme d'immigration régulière tout en capitalisation loo xam ne. Hmm. daf leen di permettre au retour mën a am loo xam dina tax ñu mën a investiraat ci seen dëkk. dinañ hmm. dem fële acquérir de l'expérience mais tamit dinañ bàyyi benn capital financier boo xam ne. ci mécanisme yi ñuy teg dina leen permettre ku fa toog dix ans boo dellusiwaatee tamit di nga am loo xam ne leen di. d'accord et très rapidement sur l'éducation. sur l'éducation réforme totale lañ ci def. parce que réforme bi ñu def en quoi faisant déjà en intégrant les daara dans le système éducatif. bien sûr oui loolu suñ leen ko defee sëriñu daara yi ñoom ils vont se retrouver dans la fonction publique donc vous militez pour le changement du programme. Euh, alors c'est une amélioration. déjà déjà le fait d'intégrer les daara donc c'est c'est benn benn pas la mais aussi ñu defaat benn réforme complètement du du système éducati éducationnel actuel boo xam ne dañ koy adapté par rapport à la situation socio-économique du pays ak li nga xam ne moom mooy les besoins du Sénégal je ne veux plus former de d'experts ou de ou de de de, de techniciens yoo xam ne sa sera pour le marché international. mais hmm. damay former ñoo xam ne ñoom ñooy topp l'évolution de de la situation socio-économique du pays. d'accord fi ñu jeexalee pour nga doon candidat il faut d'abord nga am ay parrains yu mat. fan nga toll ci parenage waaw ah, loolu waxu parrainage nekk na loo xam ne je suis l'un des rares candidats yi nga xam ne maa ngi remercier waat encore une fois les Sénégalais ci confiance bi nga xam ne am nañ ko ci man ndax euh, ba may ba may toll ci plus de cent vingt mille euh, euh, copies d'identité boobu fekk na waxuguñu waxu parrainage. mais ragaloo ragaloo mu am ay doublons wala mu am ay. ndëgg euh, sa loolu loolu dañ koy wax mais mu ngi jëm rek ci par rapport ak tirage bi nga xam ne moom moo nar am ak nombre de ak nombre de personnes yi nga xam ne ñoom ñoo ñoo candidats yi nar a déposé. bien sûr ak ci position bi nga xam ne moom ngay génne pour mën a wax wàllu doublon bu weesoo loolu ñun. ñu ngi góorgóorlu pour mën a am quatre à cinq fois xëy na li nga xam ne moom lañ ñuy laaj. d' accord bés bu yéegee ci booba bu ñu laajee dañuy roc ci dugalaat. dernière question est ce que vous êtes pour ou contre ñu dàq élection présidentielle 2024. ah non xalaatul ko lu tax ñu koy dàq lan moo tax ñu koy dàq. d' accord lan mooy situation bi tax ñor ko dàq. élection ah, Sénégal dañuy yàkkamti jëlee li fi ne te euh, comme ni ma koy faral di waxee dañ maa yónni te yàkkamti ma te bu boobaa. Euh, amatuñu temps bu ñuy xaar. Mohamed Ben Diop mu nekk euh, candidat à la candidature de l' élection présidentielle 2024 waaye tamit ma fàttali moom mooy njiital euh, mouvement wala grande coalition bi ñu duppee Pass-Pass kon bokk ci nga xam ñoom ñoo samp seen den élection présidentielle 2024 xëy na dinañ amaat encore une fois beneen tribune ngir gën a yaatal encore mbette la woon daal di jàkkaarloo ak waxtaan ci li nga xam moom moo jëm ci biir bi bokk yi 12 minutes